rek ku bëgg tinkeeku dafay fekk nga tënku hmm. jàpp ma mag Macky dara tënk na ko parce que si tu as à l'Assemblée nationale une majorité qui t'obéit au bout du doigt loo wax mu ne la waaw sans réfléchir sur le fondamentaux ou njëriñu loi bi l'essentiel yaa ko wax yaa ñu fa teg fàtte nañ ni sax askan yu moo leen fa teg parce que sàpp les lois man je n'ai aucun problème avec les lois parce que les lois ñiy ñiy woote loi yi assemblée lañ ne te ñi nekk assemblée askan wi daanaka moo leen fal Pape bi Fall dafay nekk biir koñam diriger fa ASC waa ASC bi wóolu ko waa koñ bi wóolu ko mu am fa tur politiciens yi gis ko boole ko seen liste yóbbu ko assemblée mais bu demee assemblée li muy njëkk def mooy fàtte na waa koñ ba ñi nga xamante ne ñoo ko yónni assemblée nationale. donc les gens ne sompa pas à l'assemblée nationale pour représenter d'abord le peuple ils sont là pour représenter effectivement ki ñu jàpp ni moo leen fa teg le chef de parti. et puis booy pour man d'accorduma dara ci li seetee wax parce que pour man euh, affaire bii nii c'est simplement. chercher à sécuriser une forfaiture chercher à sécuriser une forfaiture mooy lan mais bu dee damay dindi dara teg fa dara li ma dindi dama naan lii dindi naa ko amatu fi mais où est-ce qu'il que l'état d'urgence n'existe plus où est-ce qu'il que l'état de siège n'existe plus <coughs> et puis quelle est la lan mooy euh, lan mooy nu mu tuddati sax Euh, période bi nan la ñuy waxee période bi lan mooy. app bi lan mooy app bi c'est-à-dire c'est de camp à camp et cetera et cetera. Ah, c'est-à-dire dans cette dans cette histoire pour man on est en train de jouer avec les mots pour man de jouer avec les li ma jàpp tey mooy une assemblée qui perd son pouvoir en termes d'autorisation elle n'a plus lieu d'exister. amatul benn njëriñ parce que opposition bi moo fay nekk di jéem te li muy jéem du am benn njëriñ parce que elle est minoritaire et puis sax après ci li mu waroon a ci li waroon a nekk doole assemblée jël nañ ko jox ko président président de la république pour man liñ ci jublu dëggantaan c'est restreindre les libertés d'expression et dans une démocratie quand on restreint les libertés nit ñi mënatuñu wax à part internet et que internet c'est virtuel nit ñi ñu par exemple aujourd'hui Sonko ne plus capable d'organiser son nemmeeku parce que les réunions publiques ne sont pas autorisées mënatul nemmeeku mënatul am absolument c'est en fait lan mooy c'est-à-dire quand on nous <coughs> les lois quand on nous effectivement c'est pour la gestion des catastrophes naturelles urgence sanitaire et cetera et cetera urgence sanitaire sax ci boppam euh, précisé wul ban type de grippe aviaire grippe aviaire urgence sanitaire la la maladie de la vache folle urgence sanitaire la c'est-à-dire rien n'est précis en réalité rien n'est précis il faut que quand même li ma jàpp mooy véritable parce que tey mën nañ li fi ñu jëm en fait c'est construire dañu nekk di construire deux fronts un front le mooy le président ak ñi mu àndal ñi koy soutenir ci parti ak ñi mu fal jox leen ay ndombal tànk jox leen sañ-sañu euh, def ak dindi mais de l'autre côté un peuple mm -hmm. qui a envie de s'exprimer et qui n'a nappa la possibilité de s'exprimer on est en train de mettre en place deux camps yoo xamante ne ku ci nekk tu te radicalises et cette mhm. radicalité elle commence avec le camp du pouvoir un peuple on doit lui donner la possibilité on doit lui do dafa dañ dafa soxla ay espace yoo xamante ne ay espace d'expression quand les gens n'ont pas d'espace d'expression finalement ils étouffent booy xool fii si le couvre-feu continue booy xool booy étudier couvre-feu bi lu muy gën di dem on va assister à des à beaucoup plus de violence conjugale on va assister à beaucoup plus de meurtres on va assister à beaucoup plus parce que effectivement les gens sont étouffés donc il faut que ñu desserrer permettre aux gens jox nit ñi la possibilité effectivement de parler parce que c'est important dans un pays que les gens sortent que les gens parlent que les gens s'expriment

lan lay permettre par exemple xam nga les sénégalais sont réticents ci affaire vaccin vaccin bi. Mhm. dafa mel ni dégg naa ñu ne président Macky Sall nee na dañuy vacciner tant de kii par force. Mhm. par exemple pas par force mais en tout dañu leen di vacciner. Mhm. c' une façon en tout stratégie. ah xaaral rek. est que loi bi day permettre. jox bañ ñu perquisitionné la ñu ñu ñu ñu forcé nit ñu vacciné oui ou non. non loolu man mënu ma ko sincèrement nit. non bu noo fi ñëw naan ci non non non il faut être honnête. non tontul tey yàlla non non non mënoo fi ñëw tellement sûr de tes propos nga commencé. non je suis sûr de tout ce que j'ai dit. mais il faut être honnête. Euh, il faut être honnête c'est-à-dire nit mënul. di fa man du ma 10 heures de bonne aventure. wala waxaara rek. non non dama lay laajaat question. non non non bu précis du point de vue des droits de l'homme sax on peut pas obliger quelqu'un à se vacciner. non dañu waxante lu leer lu terre à terre. on peut pas obliger d'obliger quelqu'un à se vacciner. déglu rek dama ne mm-hmm. loi bi. Mm-hmm. exceptionnelle bi. Mm-hmm. bu vaccin yi ñëwoon. Sénégalais yi bañ vacciné wu. est-ce que am na ci ci biir loi bi lu permettre autorité bi. mu ne gars yi da ngeen di vacciné wu par moom laay expliqué loi bi dafa ne toute mesure visant à assurer le bon fonctionnement des services publics et la protection des populations. loi bi bu ñu ko tegoon xaaral rek xaaral rek bu wóoroon ne. bu ñu vacciné wul nit ñi problème am ñu vacciné leen. mais xam nga xam ngeen ni est-ce que loi bi du pour préparer nit ñi. non non si si maa xam loi bi waxul nañu non nañu leeral nañu leeral nag. parce que loi bi moom kenn mënul non déedéet defal defal ndànk rek loi bi loi la loi la waaw defal ndànk loolu loi loi la loi dafa am norme yu nekk ci kaw constitution mi ngi ci kawam. Mhm. traités internationaux yi mi ngi ci kaw mhm. la déclaration universelle des droits de l'homme qui est un traité international mi ngi ci kaw loi bi te moo ëpp doole loi bi. te loolu daf ni mënoo toucher intégrité physique gu nit. Mhm. donc kenn mënul kooku amul benn loi au monde. bu jox nit possibilité par force. nga ni da ngay ñàq nit contre son gré. non di la c'est pas vrai non non non non non non c'est pas vrai. Mm. loolu moom loi bi mënu ko wax parce que c'est contraire aux principes généraux du droit. Mm-hmm. parce que mënoo gis loi la déjà c'est une loi ordinaire am na loi organique bu ko jiitu. am na constitution bi ko jiitu am na traité international yu ko ëpp ko doole. mais Yérim on est dans un état les droits de l'homme état d'urgence non même non quelque écoute écoute-moi les droits de l'homme mm-hmm. yooyu c'est des principes généraux du droit ñoo ko protéger amul loi bi mënu la wax. loolu tey bu loi bi waxoon loolu. defal ndànk tey bu tey tey bu loi bi waxoon loolu. non mais man j'aimerais bien n'importe qui euh, defal ndànk n'importe qui n'importe qui jël dem conseil constitutionnel attaqué loi bi loi bi dañ koy dissoudre. waaw mais question bi war nañ ko laaj jaay loi bi mënul def loolu. non mais moom laa doon expliquer sànq ma ne. xam nga dama ne en matière de crise sanitaire. doo du du météo en fait xamuñu luy ñëw ëllëg xam sànq wax naa ko c'est-à-dire que aujourd'hui loi bi li mu wax textuellement lay wax dafa ne toute mesure visant à protéger les populations c'est du français toute mesure léegi nag buñ ci tollee dañuy apprécier par aujourd'hui la sànq wax naa ko takk masque bi ne am am na ñoo xam ne bëgguñu ko takk du ñëpp la neex mais aujourd'hui on t'oblige boo génnee sa buntu kër da ngay takk masque loi mën na ko loolu laay wax bu ñu ci tollee nag. sauf que ba léegi defoon na ko. non loolu laay wax. mais loi loi se comprend pas. état d'urgence def na ko wax que loi. bi mënul mënul mënul nit mu ñàkk. non ce que j'ai dit c'est au cas par cas non man c'est man je suis pas juriste de formation. c'est mais li Yirim wax noonu euh, la Maham Maham mais li Yirim wax noonu la non attends non attends mm. par cas moom dafa ne bu amee ñàkk bi bu amee on n'a pas le droit de le man dama ne man c'est au cas par cas. man dama ne mënu ko adressé te taxawul ba xam yan instrument juridique la ñu teg ak fu ñu toll ci jafe-jafe yi ak ci crise bi pour mun ko imposer ou pas loolu c'est sa responsabilité mais loi bi li mu wax rek mooy buñ ci tollee ak jafe-jafe yi nu mu mënti mel en tout cas état dina jël disposition yëpp pour protéger la population.